ñaari dof la woon nag ñu nekk ci benn piscine kenn ki daal di daanu ci ndox mi fekk mënu woon fay keneen ki bi mu gisee loolu rek mu plongé daal di koy sauvé ñëpp di tàcc naan ko allah ji allah ji ca suba sa directeur hôpital bi daal di koy wóolu ci bureau mu ne ko ah allah ji sa action bi nga def démb naes na de waaye malheureusement tey dañu dugg ci néegam fekk ñu pendre ko buum la ñu laxas ci baat bi rek daal di koy wékk ci kaw rek allah ji na ko waaw ba ma ko génnee ci ndox mi dama ko doon weer pour mu wow <laughs> lii bay new <laughs>